bari na trop euh, jot naa sa accusation nag euh, ci ni ngeen may traité que ni joué ko tout pour nous la euh, moom Ndeye Ndiaye mu wax kàddu yooyu ki nga xam ne moo di Sidi Diop yan àngan gam ci jàngal yow wax. noo xam nga tey Sidi Diop. waaw bi Ndeye Ndiaye amee problème bi. Mhm. man Ndeye Ndiaye bi mu amee problème bi. man Ndeye Ndiaye laa faral. parce que jigéen xanaa am la benn sëru jigéen mooy ëmb téeméeri tuba yu góor. Mhm. képp ku yàq benn jigéen dañu la war a dóor téeméeri yar waxuñu ku ko ku ko tëddee <coughs> ma wax la benn affaire encore mm. man Ndeye Ndiaye bi mu amee problème moom laa faral Sidi Diop tamit bi Ndeye Ndiaye amee problème sii di la Sidi Ndeye Ndiaye la faral mm-hmm. encouragé Ndeye Ndiaye waaw yaa ngi dégg mm-hmm. léegi lan moo tax mu dem ba Ndeye Ndiaye mu dem ba Ndeye Ndiaye génn ci problème bi ñi doon tooñ Ndeye Ndiaye fa ñu ne di dem nekk fa mm-hmm. bàyyi fi ñeen fi mu nekkoon moom nit ñi ne fa fi ni fi sii di nekkoon. Mhm. nit yëpp a fa nekk bëri nañu fa nekk. waaw di soutenir Ndeye mhm. moom bu fekkante ne Ndeye dafa nekkoon ci jafe-jafe boobu. moom mu jàppale Ndeye ba tey ñu fàtte loolu. Mhm. am na wala amut. bu doon maay moom damay continuer li ma doon def ak Ndeye bu ñu yàlla tàqalee ma xam ne tàqale nañu. mais nga jàkkaarloog sa moroom. nga ne yow kat joué katu porno nga wala nangam nangam affaire yooyu yaa ngi dégg te yow bi mu bi bi jafe-jafe bi amee yow yaa ko doon jàppale pour man rafetu gis nga nit nit sénégalais nag dafa am problème boobu tey jii est-ce que xam nga bu ñu dajee woon nii man ak yow. ñu daje rek ma tukki dix ans su ma la gisaatee fi nga yamoon laa lay fàttali damay defa ne fa nga yam ba tey. sénégalais moo demee noonu. amuñu évolution ok non non du def xelam ni yow war nga mun a romb foofu parce que tey su fekkante ni ñu bëri dañu bëgg a téye ndey njaay ci ay affaire video boobu wala yu kenn xamul comprendre nga li la wax. Mm-hmm. ñooñu bëgg ñu jàppale ndey njaay parce que gis nga nit saa bu tuubee da nga ko war a tuuble. su nit tuubee da nga koy tuuble tuuble mooy lan nga fexe ba li mu tuub nga bañ ko ko fàttali. képp ko xam ne da yoroon vidéo boobu. xoola da nga war a taxaw boo gisee ndeynjaay tuub nga tuub leen Ndeye mooy nga effacer vidéo bi mhm. am na wala amut mhm. parce que koo gis mu koy wane rek fekk mhm. na bokkook Ndeye dara c'est mais boo bokkoo nag moom dara doo téye mbir mi di wane du dëgg ba pare benn affaire la kii boo ko gisee moom juddoogul juddoogul si xottu nen bay dem nit nag lu mu gën di màgg xel mi di màgg na fexe bal démb loolu mu wax yal na ko yàlla defal mu def ko te na ci nekk. mais moom lu muy arrêté carrière am nii man analyse analyse bii laa ci amee est-ce que du lii mu bàyyi ci di Diop euh, dem ci seen. waaye leen ne bis waaw dama jàngat la xaaral am na mbir moo xam ne. waaw waaw. Ndeye Ndiaye démb waxam. dafa am occasion. waaw moo tax mu mu craqué wax lépp li nekk ci moom. gis nga mm-hmm. wax dafa jooy ñu ni ko looy jooy. mu ne dan wax te waxtu ban ma waxtee baaxul. Mm-hmm. ñu wax ma fan ma war a waxee normalul ñu wax ma ci ñoo xamante ni Mm. démb bu demee xoolul dara gisul dara mu daal di waxee noonu parce que ku ci nekk doon for ci wewu bay ku ci nekk doon for ci wewu bay te xam na bu baax a baax li nit ñi doon xaar mu gën mais day déchargé wu day vidé wax li nekk ci moom moo tax seen normal day laal pàcc yépp pàcc yi nit ñi doon xalaat xalaat nga ko xalaat naa ko ñi ñuy seetaan ku ci mel ni ñun xalaat na ko waxtaan dëgg ca la nit la mun ta weesu nit c'est tere normal mu daal di déchargé wu ba mu ba nit ñi xam ne du mala du baadoola du jaam du dof nit la ndey Ndiaye dafa fees c'est très normal mu daal di déchargé wu man am na leen loo xam te su duma ci bëgg sori mooy loolu ndax boo waxee ñu dafa farfarloo wala nangam ak ki nangam man dépassé naa fu may fayee ñi fay xam nañ leen man kenn du ma fay man sa liggéey je travaille dur gagne ma vie dignement man kenn du ma fay ma yàq nit wala may défendre nit xalaatuma ko sama ngor gi mayu ma ko sama deret dafa diis mais mbir am na fu muy toll gis nga dee la début moo ma taxawee di défendre bu may taxaw di xool commentaire damay gis saaga démb lan moo tax sénégalais doon jooy parce que sénégalais kan lañ yërëm kan nañ kañ nañ bëgg ku ñu yërëm parce que démb dafa wane li nekk ci moom te Ndeye Ndiaye bu waxul lépp nee naa ko képp kuy taxaw di waxaat ci nday Ndiaye sax di nga rulé la langue d'abord parce que nee naa ko déggoo mu ni man bonu te ñu te man dama baax te ñu baax ñoo gën a sonn effectivement effectivement am na leen lu nga xamante ni nit du kenn di ko sës ba ci miir bi nañ arrêté close te xam ne Ndeye Ndiaye dafa Ndeye Ndiaye dafa am ndey Ndeye Ndiaye dafa am yaa ngi dégg boobu ba léegi yàbbi wuñ ko te doomu jàmbur la yaa ngi dégg mm-hmm. def na li mu war excusez wu na devant tout le monde wax na li ka neexal li ka naqari mm-hmm. nan kolose ki nga xam ne moo di Ndeye Ndiaye ndax nag xol du ëmb ban koy bës te yaayam. Mhm. mérité wul lii waxtaan dëgg ca la. d'accord baayam mérité wul lii waxtaan dëgg ca la. Mhm. te moom en personne mérité wul lii waxtaan dëgg ca la on passe à une autre chose. mais yow jàppee ni décision bi mu jël teel a arrêté carrière am ni c'est pas. déedéet arrêté moom moo ko wax ne non non nee na dafa dafa toog stand by c'est ça veut dire que ni. Mm. ku ci nekk déggoo ñun la reculer pour mieux sauter booy dem ba mu yàgg xamatoo fu nga jëm wala fa nga jëm. xamoo loo fay fekk. Hmm. c'est très normal nga daal di dellu fa nga jóge ah. ba xool chemin buy jub. ba xool chemin bu réglé. ba xool oto bi fan la ko jaarloo. est-ce que lu solution moo am. ba xool oto bi fan ko jaarloo déglul. waaw ba xool oto benn la jox fan lan la ko jaarloo. nga jaar fa yéegaat ci chaîne wax nag wax la nag. dégg-dégg la laaj. waaw Ndeye Ndiaye xam nga ne doo attardé wu des chose jël engagement yi toll nii te nit du ko téye waxtaan dëgg ca la am na ni nan téye waaye ngir yàlla. am na leen loo xam ne waxuma la ñu fixe ko toujours de wala ñu jël ko hmm. mais de toute façon leen de xamal naa la ko man maa la ko wax fii tey a dimanche jàppal te man lu ma la mën sa wax samay proposition rek da ngay dox ba taxaw ba taxaw ci proposition yi mal tegal nday njaay moo xam muy tey moo xam muy suba hmm. nday njaay bu ko neexee tey tey day demaat fecc ci wàll kenn du ko ginti nday njaay ah même bu koy teg ci pan bi yaa ngi dégg ah muy am li nga xam te ni cachet am hmm. xam nga leen cachet ñëw nice tey man maa la wax lii tey lu tuuti nag laa ñamal d'accord jërëjëf émission bi jeex na 20h moo jot ba tegtal 28 minutes jël nañ sax euh, minute ci yeneen sunu la yi nga war a yéeg ci euh, ci plateau bi jël ngeen jëf mbokk yi xarit yi ñu doon bàyyi xel yëpp c'était Top Cas et vous donne rendez-vous inshallah jeudi prochain merci Jimbo Grady. on se revoit jeudi waaw jaajëf yàlla na la yàlla defal jàmm. amiin mooy nuyu téléspectateurs yi mhm. nga xam ne ñu ngi ñu doon seetaan. Mhm. di nuyu suma grand Abdou Aziz Silla. Abdou Aziz Silla ak euh, aw Mbuub sama mag magi bopp. Mhm. Amin Ndiaye xam nga. ak euh, petit papa. Mm-hmm. Camara Mbay yaa faat taal xam nga suma rakk boobu. Mm-hmm. maa ngi koy nuyu bu baax nekk Suisse xam nga di nuyu Abdou Kool. di nuyu Aziz Kor di nuyu suma xarit yi daal. di nuyu kullu nag ku may bëgg. macha yëg ak ku yëgul. macha allah macha allah jërëjëf Adji Mass rendez-vous allah jeudi. nag ku ne xam na ni lundi euh, bu jotee ak li nga xam te ni moo di jeudi. Mm-hmm. dañuy yëngal nag dëgg neexul fii ci Feeling Dakar rawatina ci topp kaa. dëgg la di wax di rek saa bu ci sunu borom bi la saa bu dëngee tubaarikàlla ci man la. tubaarikàlla lépp lu fi baax yàlla na ko yàlla i xéewal. Mm-hmm. ak ki baax baax ki tubaarikàlla ak ki ngëneel mm-hmm. waaye tamit di jaajëfal téléspectateurs yi ñu toogoon di ñu seetaan béggi bu baax a baax sama soppe yi mhm. sama mbokk yi xarit yi am di jàmm aw ma seen fay fa mhm. tubaarikàlla nee naa ko damay foowee mbedd mbir sax la ñu def ko ampleur di ma ci teral ci seen yéene seen jëfar seen jàmbara seen jom aw ma seen fay waaye ki nga xamante ni moo di Ami Ndiaye mhm. la présidente di groupe Feeling Dakar maa ngi teg nuyoo bi ci loxo mu seddale ko groupe gépp te di ko wax jaay taala bakar code tubaarikàlla peu de parole peu de ko déggatee yow lañ ko waxal yàlla sa jàmm macha allah merci beaucoup jërëjëf euh, maa ngi sant di gërëm bu baax tey nuyu Serigne fàllu Marabu moom nag moom mooy borom basang gi borom kurus gi ah, sëñ Fallou di ñaanal xale yi di ñaanal mag ñi mën lool ñaan ah, ñu ngi koy nuyu bu baax baax di bég ci moom et on se donne rendez-vous incha allah prochainement ci Feeling Dakar la première chaîne people et politique bu Sénégal jërë ngeen jëf. del déglu del xool Feeling Dakar site lay jox information yu leer Feeling yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people et sport